asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 7 décembre 2020 tey nag ni ngeen ko xamee yëglikaay yi moo xam sunu lamb la moo xam record la bu la neexee fu ci nekk daal tey ay xibaar ñu nga fa bu fekkente ne nag yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb la tey xëtam wu njëkk comme fa xëy wane mooy kenn ki nga xam ne nii moom mooy Lamine Faye ñu gën ko xam ci turu Lamine Golo moom nag fi mu nekk nii moom mooy entraîneur école de lutte Balla Gaye xëy na tey ñëw ci yëglikaay bi di sunu làmb seq fu waxtaan wu yaatoo yaatu ak yëglikaay ba ak ki nga xam ne nii moom moo di ka nga xam ne moom la seqal waxtaan wu tey daal moom moo di Mamadou Lamine Ndiaye moom la seqal tey waxtaan ñu gën ko wala boog lamin Faye ñu gën ko xam ci turu Lamine Golo Lamine nag la mu xëy di wax daal ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier la xëy di wax ne li am ba des daal bés ba moom maanaam seen mbër di Balla Gaye numéro 2 la Lion de Guédiawaye plan yépp yu mu mën a doon yépp lu lamb laaj ne na jàpp ne buñ ca yeggee seen mbër dana pare ngir li nga xam ne nii moom mooy jàkkaarloo ba nga xam ne war na koo jàkkaarloo ka nga xam ne moom mooy ki nga xam ne mooy Bombardier bu Mbuur Lamine yamu ca ñu ne ko est-ce xam na Balla bés boobu lu muy laaj mu ne Balla Gaye numéro 2 ci boppam daal xam na maanaam grand rendez yi maanaam bis yu mag a mag yi nga xam ne nii dañ koy xaar nan la koy préparer moo tax Lamine daal jàpp na ne am xelam moom dal na ci côté boobu bu baax a baax a baax ba bés boobu daal njàqaare moom du ko ca am ndax jàpp na ne mbërëm mii di Balla moom xam ne bés bu mag ñu koy préparé loolu waxi ki nga xam ne moom moo di Lamine Golo la ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu lamb ba tey bu ñu continuer ci yëglikaay ba nga xam ne moom moo di sunu lamb beneen combat boo xam ne nii ku ne xam ne taxawoon nañu waroon koo bëri corona bu ñëw tax bëreetuñ ko muy diggante Papa Sow ak Siteu yëglikaay bi nag dafa ñëw tey ci ñaari mbër yooyu nga xam ne nii kii nga xam ne nii moom mooy Papa Sow moom mooy doomu parcelle kii di Siteu di doomu jàmm gën ñoom ñaar nag boo xoolee bu dee Papa Sow la lam jot a am ci ay combat ci làmbam boo ko xoolee yëglikaay bi ne na toll na ci 32 combat maanaam fanweeri komba ak ñaar Papa Sow jot na koo am boo xoolee ay victoire am mu ngi toll ci 23 maanaam maanaam ñaar fukki victoire ak ñett Papa Sow dajale na ko ak juróom-ñetti defet ak benn match nul combat bu njëkk yëglikaay bi ñëw na ci boo xoolee mu nga jëkk bëri ak nga xam ne moom moo di Serigne Modou bu bayax le 12 janvier 2003 loolu la ñu yëglikaay bi xëy tey andil ñu ko nga xam ne nii nag moom moo di Siteu ay combat yëpp yi mu bëri boo ko dajalee ci 15 combat la toll yëglikaay bi ne nag am na ca lu toll ci 11 victoire ak la nga xam ne moom moo di 4 défaite yëglikaay bi ne nag boo xoolee Siteu tamit lambam ju jëkk mu ngi ko bëri ka nga xam ne moom moo di bébé Eumeu bébé Eumeu Sène le 23 janvier 2009 loolu la Siteu def moo tax yëglikaay bi nag li tax tey mu ñëw ci loolu daf leen a jàngat ñoom ñaar boo xoolee ci juróomi at yi ku ci ne résultat ba nga xam ne moom nga def bu fekkente nag. ci côté Siteu la yëglikaay bi ne boo bëggee dégg dëgg moom juróomi atam yu mujj yi nga xam ne def na ko boo xoolee Siteu daal bëri na ci lu toll ci 4 combats am ci ñaari victoire ak ñaari defet def ci lu toll ci benn année balance bu dee Papa Sow moom itam juróomi atam yu mujj yi boo xoolee yëglikaay bi nan deux combats la ci jot a bëre maanaam ñaari combats la ci jot a am am ca ñaari defet def ci ñeenti saison balance maanaam ñeenti yoo xam ne toog na ko bëreewu ko yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy tey indil ñu boobu jàngat keneen koo xam ne ni moom wala beneen écrit écrit boo xam ne ni moom dañ doon def seen assemblée général mel ni kii nag ñoom ñooy di waa yoof waa yoof nag bañ defee loolu ba pare moom ka ñu tegaat ca bopp ba du kenn ku dul bay bay tirndooy daal la ñu recondiraat ngir ñeentaat yoo xam ne war na koo jiite la nga xam ne moom moo di écrit ba nga xam ne moom moo di bu yoof ba ba tey bu ñu continuer ci yëglikaay bi ci xëtam mu njëkk itam waa xam sa cosaan tamit daa mel ni fi mu nekk nii day ak seen président ba nga xam ne moom moo di Malick ñi ngi daal fi mu nekk nii nag Malick daal yëngal na jaaj ya soññu gaaya ngir nag ñu sonni mobilisation ba gën a takku ngir écrit xam sa cosaan gën a dem a dem ca kanam yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey wax nu lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne fi mu nekk nii moom mobilisé na ab équipe am ba taxaw muy jamaykee ma nga xam ne nag yéeg likaay bi di sunu lamb daal xamal nañu ne day li ambades moom jamaykee mi daal fi mu nekk nii moom lamu nar mooy fédération gambienne bi nga xam ne ñoo ñoo yëngu ca wàllum daal jiite ko la nar jam nag décla déclaré woon na la nga xam ne moom moo di candidature am waaye yemu ca fi mu nekk nii daa mel ni ki nag équipe ba mu fas yéenee àndal daal def liggéey ba bu ñu ko joxee fédération ba présenté na ko yéeg likaay bi di sunu lamb moo xëy ba tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu ba tey bu ñu ñu continuer ci yëglikaay bi beneen combat boo xam ne ni daal taxaw na yëglikaay bi na benn combat la boo xam ne daal kaka taxawal nag moom moo di fay production muy diggante Kara Doole ba nekk ca les bu Mbaye Guèye ak ka nga xam ne ni moom moo di Mamaya bu Tëngéej combat ba daal soo bëggee dégg-dëgg moom taxaw daal def def na ko sunu làmb xëy tey ñëw dinu ko wax ñeneen ñoo xam ne nii moom ñoom ñoo di les menaces ya nga xam ne ñoom ñoo nekk ca Thiès yore mbër ya ñoom daal audience ba nga xam ne amaloon nañ ko ak l'inspectrice ba nga xam ne moo yor wàllum sport ca Thiès daal dafa mel ni ñoom la leen jaaxal ak seen i yépp dajale nañ ko ñëw tegal ko ko ci nag di ci xaar mu indi ci ay solution maanaam daal mu faj seen métti yooyu nga xam ne ni tegal nañ ko ko ñoom ñooy mënaat sëmbër ya nekk fa nga xam ne ni moom moo di ca bi di suñu làmb xëy ñëw ba tey wax ba tey bu ba daal lam nu xëy xamal moo di ki nga xam ne moom mooy première dame bi di Marème Faye Sall daal daa mel ni bett na mbay géey mi nga xam ne dafa xaw wér di fan yi yëpp wala ci wér yëpp enveloppe boo xam ne bu diis gann la gi ngir nag jàppale ko ko ci wér di gi nga xam ne nii tëral na ko fi mu nekk nii loolu la première dame ba def Marème Faye Sall yëg li kaay bi di sunu làmb xëy ñëw wax na ko ci ay tuusam ba tey bu ñu continuer ci yëglikaay yi dañuy dem fa nga xam ne nag moom moo di ca record record moom la mënu xëy xamal moom moo di loo daal fi nga xam ne ni daal fa la bokk ci jamono ji daal li mu nekk ci ay préparation ña nga xam ne ñoom lay nekkal muy Papa Sow Yékini Junior ba ci ñoom laay Pythagore ak samedi ak dimanche daal na mu di nekkee record xëy na tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne ni moom dafa lekk avance te ku lekk avance nag tëdd pom muy xam naa loolu la xam ba yëglikaay bi di record mu xam ne daal Maama Lamine fi mu nekk ni daal ngir préparer ki nga ne moom moo di garga débam la ko ca doy du fenn fu dul Gàmbi moo tax foofa nag la dugg fas yéene nag préparer la nga xam ne nii moom moo di combat ak ka nga xam ne moom moo di garga de bu fa nga xam ne moom mooy jàmbaar wrestling académie yëglikaay bi di record moo xëy ñëw tey wax nu lu mel ni ki noonu actu de ba tey ci record ñu ñu xam ne daal ki nga xam ne moom moo di Modou Lo moom def na loo ne lu rafet a rafet la maanaam sol na aw dàllam dem ca kër ka moom moo fi bàyyeeku wuyu ji boromam fan yii te te ñëpp xamoon ko muy Pape Bouba Diop dem ko record na tey ñëw wax nu lu mel noonu ca actu ba nga xam ne moom mooy moom lay tudde boog actu la l'arène mel ni ki nag saison bi nga xam ne moom mooy saison wu làmb ji donte ubbeegul te am na ay dëkk yoo xam ne xëy na ñu ngi organiser ay gala ba ku mel ni waa Fatou production te yax jub jiite ko jàppoon dafa gala wu 3 millions fa nga xam ne moom mooy ca Ndaayaan daa mel ni ki nag mbir mooma daal ah daa mel ni fi mu nekk nii dañ koo xaw a ajandi ginnaaw euh, la nga xam ne moom moo di waxtaan wala daal la nga xam ne ni moom moo di ñu waxante ci seen biir ba pare record moo xëy tey ñëw diñu wax lu mel ne ki noonu ba tey Balla Gaye numéro rek anniversaire mel ne ki nag àjjuma ji ñu génne daal la loolu doon am li TV mu ngi nu koy wax mel ni ki daal la def na anniversaire ba waaye dafa mel ne nag soxnaam ak ay doomam ba ci rakkam ja nga xam ne moom moo di Sa ku ne def nga ay témoignages ci moom ak magam ja nga xam ne nag moom moo di liiru jaan mu tudde boppam monument wu Géejawaay ba tey loolu yëglikaay boobu di Lutte TV fa la ñu koy fekk mu mel ni ki loolu moom moo fi ñëwoon tey ci altine ji di la ziara Modou Khoule di la ñaanal jàmm waaw macha allah di bëgg ci yow tey moom moo ne ci caméra bi comme ni ngeen ko xamee nag tey ñu ngi lundi 7 décembre 2020 ah di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di balu ñëpp di ñaan Sénégal yàlla fi yàlla def jàmm yàlla na yàlla yokk jàmm ji fi ne def ko ci àddina bi corona bi ñu jaaxal yàlla na fi yàlla jëlee barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax nag fi mu nekk nii tëj nañu xatal nañu sonal nañu vraiment nit ñi kenn mënta def sa activité lan corona kon lii tax mu dem nañ ci gën a taxaw vraiment mais doy na waar mais itam dama naan est ce que bu ñu naree continuer nii xulle est ce que uti ay solution parce que nag maanaam am na loo xam ne est ce que dina mën a continuer ah day doy waar de parce que tamit yéeme na xanaa kay xool yenn manifestation yi ñu ko organisé na suñu làmb ji nga xam ne fi mu nekk nii taxaw na wax dëgg yàlla mbir yi bëgg nañoo bëri promoteurs yi joxe nañ seen i xaalis yaa ngi dégg amuñu lu ñuy def te lu ko waral mooy corona li ma kii tuuti nag mooy am na ay manifestation xam ne ñu ngi koy mu ngi am ci dëkk bi dinañ ay soirée di am ak yeneen pas waa lamb ji mënuñu leen a utal solution ñoom tamit ñu xool nu ñu organiser mën a tëgg seen ay lamb parce que nag promoteur bi jël daaw ba ren ay millions ay dizaine de millions mbër toog di xaar te ñeneen ñi bu fekkante ne tere bi daal tere la nañ ñu boole ñun ñëpp tereendoo ñëpp ku nekk toog bañ a def benn activité bu ñu ñëwee nag ci journal yi wala yi Balla Gaye numéro 2 Bombardier ci xët wu njëkk sunu wax nag muy Golo moom nag actuellement moom ci entraîneur yi école Lamine Balla Gaye ci la bokk mu ngi xëy nag di wax ci mbërëm mi nga xam ne moom mooy Balla Gaye jàpp na ne ci plan yu mu mën a doon da cay pare incha allah rek bu na leen tamit Balla xam ne muy préparé grand rendez ah, naa ne euh, moom defe naa ne lu war a mën a nekkal ndax Balla Gaye numéro defe naa la ñëw si làmb ba tey boo ko xoolee muy at yoo xam ne nii bëri na kon defe naa kooku war naa xam na la ñuy préparé bés war naa xam ne ñuy préparé làmb kon defe naa loolu Lamine wax itam lu xel war a man a nangu la nekkatul lu ñu koy jàngal waaw ñuy ñaan yàlla nag comme ni mu ko waxee bu njëkk ci bis ba ñoom ñaari mbër yëpp ñu pare pour ñu mën a jàmmarlu waaye xam naa daal combat bu nar a metti lay doon combat Balla Gaye 2 bi ak Bombardier parce que Bombardier bëggut a génn ci làmb tey ak ay defet te ku ko xam-xam ne mbër la bu sérieux bu fonk li muy def te itam bëgg na la mu defoon nit ñi naan nii laa dundee bëgg na bi yoon bu ñëwee wane la pire maanaam daan Balla Gaye jël bu gën a leer loolu lay bëgg Balla Gaye numéro 2 itam am défi bu koy xaar ci combat mooy Bombardier da koo daanoon ci daan boo xam ne jàpp nañ ne ah moom xëy na am na lu ko arrivé woon wala nangam sàngam moom mu ñëw tey war a jël revanche am war a leeral digganteem ak Bombardier muy loo xam ne tamit bu koy xaar la te la yaakaar naa ne itam ku ko xam-xam ne mbër la moo xam ne nii ah macha allah foog na li muy def te itam lu mu man la loolu moom defe naa Sénégal yëpp képp ku suivre lam def nga ko saru muy xam ne juni suñu Papa Gaston bi ko fekkee tal ko combat bi beneen combat tamit taxaw na muy diggante set ak Papa Sow corona fa jaar koor ko ba mënuñu koo bëree ba tey waaye ñoom ñaari yëglikaay bi daa ñëw ci ñoom ci boo xoolee yi ñu génne ku ci ne la nga jot a def bu dee Papa Sow la moom at yi cinq yi ñu génnee boo xoolee ñaari combat la ci bëri da koo ñàkk ak ñeenti année balance mel ni kon moom itam ah cinq yi wax dëgg yàlla ci côté làmb doxul parce que ay année balance yu toll nii boo ko defee quatre sans compter ñaari defet ñaari combat ñaari défaite loolu defe naa lu méttee méttee métti la loo xam ne itam ah sport nag mooy tëddi noonu des fois mu ne ci di dox des tamit mu wàcc mais xëy na ah mu ngi jëm ci combat bu ñëwee tey ba tey ci Siteu moom itam 5 ans boo xoolee moom moo xaw a tane parce ci boo xoolee ni kon mbiram moom itam demul cëng dikkul dikkul mbay laar wax fa mu taxaw la tax parce ak benn année waaye lu mënta xew moom moo tane la Papa Sow boo xoolee ci 5 ans yi ñoom ñaar nag boo xoolee seen palmarès yi ah am nag coree lool bu ci am ndax Papa Sow boo ko jàppee tey xule ci 32 combats am 23 victoires 8 défaites ak benn match kon xam nga kon kooku dèjà mën nga ne ah tey ci mbir yi ëpp victoire ci lam Papa ci la bokk parce que boo xoolee loolu ci ay ndam 23 victoire loolu doy jaaxal yow mun bër bëree ko te boo xoolee mu ngi ñëw ci làmb ji kañ le 12 janvier 2003

moom moom la njëkk a bëri kon mu mel ni ñoom ñaari mbir sa boo xoolee ku ci nga njëkk a sa sa sa combat arène muy ñaari mbir yoo xam ne soree nañ ci côté palmarès soree nañ ci lu mel ni waaye nag tey làmb li ñuy wax garab la ci kaw lay fekkante daban Siteu liggéey na ba tax Papa Sow Siteu xale boo xam 2009 ak léegi yàggul boo xoolee suma jumle si 11 ans lay toll

ñoom soq ak ay jet léeg ah ñoom ñu fa ne ñoom ond gaa yëpp ñu leen di bëggee waa jamaykee moom ku ne xam ne promoteur sénégalais gambien la mais actuellement ah la mu bëgg mooy jiite fédération gambienne ba yëngu ca wàllum làmb comme ni CNG amee fi bira seen jiite ko moom candidat la pour jiite fële waaw loolu nag yëg likaay yooyu suñu làmb xëy ñu wax ko xam ne daal jam dag ñu ngi ñu ko wan nii mu ngi sol gamam bu rafet macha allah hmm? def benn buréem booy toole jam sama <laughs> ba la soxla ba tànnee kii bam ba teg ah waaw ñuy nuyu suñ mbokki Gambien yi rawatina ñoom ñi fa nekk ñëpp ñoom jibal Touré duñ ko fàtte maa ngi bu baax a baax ah ñoom Père Ndongo Cissé maa ngi leen suñu ay waay lañ te lépp mu ngi jaare si Jamaïque képp kuy Gambien rek ñu ngi lay bégg suñu soppe yi fa ne parce que bëri nañ fa ay soppe ñoom Paate Gambia bokk si jam production ñoom ñëpp ñu leen di bëggee di képp kuy gàmmee Marème Faye Sall it def na sëstu bu am solo ah Père Mbaye Gueye ku ne xam ne depuis boobu dafa feebar tëdd ci lal hôpital mu ñëw jàppale ko kaamala loolu tamit dañ koy saluer parce que lu baax lu baax rek la a doon te ku ku koo tanete dimbali woo ko xulli yéen ñaare yam damay dégg sama wàaje ci Zik FM mu di ko faral di wax saaliwu xulli sa turandoo waaw waaw da koy faral di wax kon loolu am na solo trop ba tey bu nu continuer dem record record moom Modou Lo ki samedi ki dimanche sama nam koy préparé ak yu mel ni ki noonu ah, ak ay nitam yi mu nekk ay ñoom papa ay ñoom Yékini Junior ay Laay Pitako ah mel ni kon loolu itam ànd bu yàgg la rek waaw ah, dañ leen di ñaanal rek yàlla musal leen ci cat ak saytaane parce que ànd moom fu mu yàgg rek xulle jàppal nit dégg na fa lool muñ nga fa dara wala nga dégg loo nekk liwul waaw bu ànd yàggee rek loolu la parce que ànd moo Maama Lamine moom ku ne xam na ne Equivox bii ñoom ñoo tëgg combat moom Garga 2 moom nag mu nga Gàmbi di préparer Garga 2 waaw Maama ñu koy nuyu ba tey di nuyu waa Gàmbi ah daa am bés combat bu mag a mag a mag la am moom Maama Lamine waaye Garga it am nga combat acte de l'arène Yaxya Jóob Yékini Galaaba reporté ah fi mu nekk nii daal daa mel dañ ko xaw a ajandi mu demee moo tax waaw loolu ba tey acte de l'arène la ba tey leen TV dañ fay fekk Balla Gaye de bu doon fête anniversaire am soxnaam wax na ci moom ay témoignages yu ay doomam rakkam Sa Thiès mel ni ki tamit ak magam Lirou Diane buñ ne diw baax nañ naan ndax mbokk yaa ko wax waaw xulli saa yu ne baax nga na fekk say mbokk mu jëkki ci ñoom parce que nag ah ndox mu jéggi baax waaw balay wal di dem feneen na jëkki ci say mbokk te pour man say mbokk ay ma ba kon ñooñu wax bu dee soxnaam la bu dee rakkam la bu dee ay kiyam la magam Lirou Diane ay mbokk parce que ñu am na solo Balla Gaye ñu ko ñaanal yàlla anniversaire bi nga yàgg ko fete at yu bëri di ñaanal bépp doomu Sénégal waaw di wax ne daal tey loolu moo fi ñëwoon xulle waaye tamit di interpellaat état bi rek parce que suñu internationaux yi dañu gis ci internet bi démb ak tey ku mel ni kenn Ndoye ku ne xam na ne défendre na couleur réew mi gagné ay médaille pour Sénégal actuellement dégg naa dafa wéra di ba nekk ci ay jafe-jafe daal kon état bi la ñuy wax ñun suñu kàddugu gu gàtt gi buñ ko déggee nañu dem soutenir ko balaa leneen di am waaw loolu daal dañ koy wax tey kenn dooy daal ñu ngi ko ñaanal yàlla tam yàlla ko yàlla yëkkati barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam yëkkati bépp xam ne wéra waaye tey nag damay dem ba Sevilla ca Espagne nuyu ki nga xam ne moom mooy Jibi Dia moom moo ma jox ma Real bii ñaar la ma si jox plan bi ak kii mayo bi la ñuy football xam nga Real mooy kër gu mag gi ci football loolu la yàlla dogal ci àddina bi gis nga lii jibi ca maa ngi koy bigi bu baax a ki dem nag ñoom lañ gañe sax moom si supporter Séville baax a baax ci équipe ak ay vidéo yoo xam ne nii dañ leen ko reportage yoo xam ne di gis làmb ba mu doy incha allahu rabbi parce que loolu mooy li nga xam ne mooy mission bi soppe yi am di jàmm yi xarit yi fu ci waay mën a nekk rek maa ngi leen di bëgg waa Afrique du Sud du ma leen fàtte waa Côte d'Ivoire waa Guinée Bissau Dabax Norvège Saliou Ciss maa ngi leen di bëgg di nuyu waa groupe baax rawatina président Massamba Dieye dem def ngeen lu am solo Lamine Niane moo doon ngénte ah ca Fass Barigo ma gis soo Malick ñoom Medzo ñoom Ba Fall wax dëgg yàlla muy rafet di jéglu ci ñàkk a teew ceet ga ñëwoon na mais mais yàlla dogal ngénte gis nga mu demee Lamine Niane maa ngi lay baax wax di sa doom la Issa bu Eumeu Sène di na fi yàlla def jàmm xul